ci menace boobu en tant que un leader de parti taxaw interdire carrément Barthélémy Diaz de battre campagne mom day dem samp buntu kër Barthélémy Diaz baw ba battre fa campagne loolu la déclarer won manam mu déclarer retouru Gassa Gassa du temps de l'opposition mais dañuy gis très vite en moins de 24 heures mu désactiver li nga xamanteni moy Gassa Gassa bi dellu au calme Barthélémy Diaz génn dal di koy tontu hum. ginnaaw ba mu demee ci ministre de l'intérieur xamal ni ko Barth dafa yor ay armes mais la réponse de Barth noko ko parce que mom dafa ñew këram du joy, ragal Barth jangal ko sauver ko sauver famille ay garde corps jox ko ko ay autom jox ko mu jaay sénégalais posture bo xamanteni nañu ko alors que a euh, éclairé la lumière. Euh, gis nga relation Ousmane Sonko man dafa am lu man dama ni par générosité la mais Barth sax war won yegg fenn mm-hmm. mais wax na ko gis nga man Barthélemy Dias homme politique bu ma la. Mm-hmm. parce que c'est un jeune suñu morom la danaka mhm. te aussi il faut lui reconnaître que ni def Sénégal. Mhm. nit mënu ko tuko dindi duguna ci mhm. mais si xam nga la erreur Bart. erreur man dama japp ni Ousmane Sonko. ku ko top trajectoire am. war nga xam bu baax li ngay dug ak Ousmane Sonko dans le cadre de l'affaire Ousmane Sonko blason famille yam am na sécurité Ousmane Sonko dox na ci dëkk bi ni am jamm am sécurité état donne ko sóoraale Barthélémy Dias joué na ci un rôle de premier plan. il a dit hier loolu fi lañu fekk. il a dit hier non cest à dire que lool Dange jaru won sax mu koy wax lool daf ñu fekk. donc c'était pas les les Pastéfiens c' était Barthélémy C'était c' c'était Barthélémy on a vu comment ces gens là et puis il y' a d'autres hein, qui ont tout fait waxuma la sax dans le cadre rek ci affaire Adji Sarr bi mais même ba muy nekk en prison.

nga ko do campagne mais xanaa Dias yorul liste. <laughs> non a Dias mom amul ay militant bat fayul caution mais ma caution état du Sénégal de facto amène amen, sécurité warna tirer tirer sa assurer sa sécurité si pas avant le vote pendant le vote et après le vote. jusqu'à jusqu'à la proclamation des résultats. question bi pour ça. Quand le ministère de l'Intérieur tu es en faute candidat au niveau du code électoral il un candidat le candidat où qu'il se trouve mm-hmm. parce que aussi attention. Tange yàq élection yomb na de. yàq élection ku yaakaar ni sa mbooloo élection mun nga yor mbolo 100 personnes ki yor mbolo 10 personnes ñu yàq élection bi. parce que bu sànnante xeer amee. le nombre ne compte plus. képp xeer la ñuy xool xeer la ñuy xool. xam nga kon kon benn instant te Ousmane Sonko dafa am lu mu war a bàyyi ci discours am Tange fu mu toog lu muy njëkk wax mooy maa leen ëpp man la xalé andal maa yor doole ji mhm. Ousmane Sonko et man pour man dafa xaw am benn vanité bu extraordinaire bu nekk ci moom mbooloo moomu tey tax na mhm. gis nga ni muy défier Diomaye ku ko dégg c'est des menaces appen peine voilées man maa ngi soogaa dégg man premier ministre buy menacer président de la République man lool moom maa ngi koy soogaa dégg ba ma déggee vidéo bi sànq walla xam nañ bañ ma ko envoyé dama yaakaaroon montage la parce que nee na su demee ba say gëw ma ko baax nga donc foofu nga war a xamee ni que personne nga mais mais effectivement. mais Dioma, il est bien. mais il est posé. mais il est posé il est responsable. peut-être on lui met les bâtons sur les roues. mais dama ne la répéter... le problème de, du Sénégal actuellement. Mm-hmm. c'est Ousmane Sonko. le Sénégal irait mieux sans Ousmane Sonko là. parce que xam nga lu tax. Euh, gëmul kenn. boppam la gëm. faalewul kenn boppam la faale. yaakaarul ci amul kenn koo xam nag di nga taxaw Ousmane Sonko Ousmane Sonko ndaw loola. mais moom mooy weddi boppam xanaa lenn. Mm-hmm. lenn boo ñëwee ci Ousmane Sonko. nangul nekk dunguróom nekkal ci gannaaw. tant que yaa ngi positionné wu derrière lui. mën ngeen ànd seen ànd mën naa neex. jeex na euh, àndal ak ñoom nekkal taalibe. nekkal taalibe rek di ministre de l'intérieur su arrêté wul mais mais mais hmm. mais mais xam nga loolu. mais mais temps yow loolu warul la bett barki dembo Ndiaye dégg nga ñom fadilu Kay Kayta ak ñom ñom ñom ñom fa kii euh, euh, li ñu wax ci jomay Fay mais un président bi guéné décret hmm. cadre Pastef yëpp daw hmm. songu décret bi mais pratiquement dañ ko xass parce que loolu man pour man désaveu la un président de la République war nga ko meuna ça dit que war nga ko meuna contester lu nek mhm. mais sauf ce que la constitution c'est le président de la République qui nomme au poste civil et militaire loolu da koy nangu. loolu moom àgg bu nomé won ko xamni manam saway nit genn wal nit la sax suñu yoon ci. kok responsabilité la parce que à la fin de la journée buñ dématé en 2029, jomay fay neuf day rendre compte devant les Sénégalais. day ñew nañu dëkk bi ni la ko yoré won ta loolu bis boobu tâche dana ñew bis dana ñëw di nga jàkkaarloog ce peuple ne leen li laa yore woon sa réew mi. te Diomaye il va pas faire moins que Macky Sall. Mhm. il va pas faire moins que Ablaye Wade. Mhm. il ne fera pas moins que Diouf il ne fera pas moins que Senghor. parce que tu as espoir que mo def plus. wa ah oui parce que xamal tax. man day non non man amna yakar ci si mhm. parce que lu tax man la amna yakar ci si euh amna posture homme d'état bëgg na réew mi. Uh-huh jomaay mosuñu fekkee fu muy taalee réew mi. man de dégguma jomaay lu mu wax lu mën taal réew. ku ma tooñoon wax dëgg yalla je suis le président de tous les. Euh, euh, euh, il a pu il a pu il a pu man dina la Tange kenn gënuma kenn dàq opposé wu. Mm-hmm. mais nak lu lu man lu nen dama nan nen a ku gis nen na nen ngi. franchement jomaay actuellement mi ngi jël vraiment ben genre notoriété bu extraordinaire au niveau des sénégalais. Mm-hmm. bu ko xamé bu ko xamul. Mm-hmm. parce que sénégalais ñing koy nawlo ci jikkoom sénégalais nous aussi si si si en tant que président de la République te aussi mi hauteur mi émotion personnelle am mhm. kay kenn fi mhm. émotion partisan partisan ñoko teunk émotion primaire am lay exprimer mhm. muy vraiment euh, euh, d'accord